RFM dafa jënd ay paquetu billets. yu bëri. te bëgg nañu daal. Mhm. auditeur bu ñu jox billet. Ah. jox la t boo xam ne dinañ ci bind groupe Futurs Médias soutien l'équipe du Sénégal. jox la butéelu ndox jox la sandwich dugal la ci oto ànd ak yow dem stade seetaan si jàmm supporter équipe bi demuñu pour toog di xoole da ba nekk ba dañuy wut asiko bu ànd ak li nga xam ne RFM moo leen di yóbbu stade pour bu ñu demee ñooña bu yëf yi xumb fa ne gën a xumb fépp. parce que dañu soxla loolu équipe bi fu mu toll nii raay équipe bi équipe bu réew mi moo soxla donc ñëpp war jóg taxaw très bien Ndofène waaw ci organisation bi ak vente billets yi organisation waaw mm-hmm. commencer nañ ko tey talaata mm-hmm. euh, ci euh, chaîne City City Sport yëpp seenu chaîne Elton yëpp mm-hmm. dañ ko def Léopold Sédar Senghor def ko Demba Diop def ko Iba Iba Mar def ko CEDEPS bu Guédiawaye def ko CEDEPS bu Rufisque ak euh, centre culturel bu Pikine loolu bëgguñu grossiste bëgguñu benn nit ñëw foofu. di jënd ay ñaar fukki billet kii téeméeri billet. bëgguñu loolu parce que loolu mooy indi xat-xatal bi. Mm. dañoo bëgg ku ñëw na jënd billeem. bu bés ba jotee nga ñëw ak sa billet euh, euh, midi la ñuy pare installation yëpp. 13h ñu ubbi stat bi ku ne ñëw dugg sa billet. comme ça y aura pas de marché noir. bëgguñu marché noir ah. ku fa ñëw di indi marché noir. service ah. sécurité bi dana nekk ba ci biti. ku ñu gis nga yor naaxu billet ne da nga koy jaay daan la jàpp nangu billet yi ci yow. donc samedi midi la le billet yi lañ koy arrêté. ajjuma ci ngoon la ñuy arrêté njaayum billet bi. Mhm. samedi ku fa ñëw doo doo gis billet te du ñu jaay billet. parce que dañoo bëgg sécurité 100 pour cent sécurité ci biir. ci biir enceinte bi ci ci fi ñuy gaare oto yi ak ci biti am na ñu fa nekk fi mu ne la fa nekk ci xeer ak yooyu yëpp dindi nañ ko mhm. vérifié nañu opération set setal daal euh, def nañu opération set setal parce que bëgguñu sax waa ji ñëw naan am na benn xeer bu nekk fii wala yu demee noonu seet nañu groupe électrogène bi tey ànd nañu waa ak waa ANPS. Hmm. pour ñoom ñu seet seen tribune de presse. tribune de ànd nañoo ñoom ak sécurité pour wan leen fi sécurité di ñëw jël leen yóbbu leen fa ñuy defee. point de presse bi euh, loolu euh, xëy na euh, lu ñu inauguré la bi yoon waaye day indi yombal parce que yéen a xam ni ngeen bëggee ñu defee ko seen liggéey bu ngeen ci jàppee ak ñun xëy na na ngeen ko bëggee daañu ko ko defee Malal juste une précision pour sa auditeurs yi parce que nit ñi déjà commencé nañu woote pour am billet yi yan heure la émission yi Boubacar dafa di liggéey 9h ba 11h ci suba mhm. ku woote ci téléphone ba 88 628 14 14 boo wootee bii laa bëgg mu may la bii ba keroog muy wàcc. Mhm. Euh, Nicolas dafa di ñëw 14h ba 16h30 moom itam noonu lay def. ok Kolos moom daanaka 6h30 lay ñëw. Mhm. jëm 21h. de itam dinañu seet tam sax ci yeneen i pàcc yi parce que am na ñoo xam ni ay nitu guddi lañu ay ndox tàmbi lañu mooy ñuy déglu émission bi nga xam ne moom mooy temps booy. Mhm. boobu minuit lay door jëm 2h du matin. dinañ ci am lu ñu ci jox si daat itam ñu ñu mën ba. foo teg sa bët gis fa foo teg sa may sa nopp dégg muy rëkk te loola ñi ne ci réew mi yore asiko yi ñëpp waruñu xaar ñi leen di woo dañu war a jóg sol seen mooy équipe nationale dem stade géewal yi ne ci réew mi Doudou Ndiaye Coumba Rose mbay Dieye fay waa Pikine ñoom ñëpp dañoo war a ñëw parce que c'est une affaire nationale xam na dañu ne dañu nekk ci yoonu tabaxaat tabaxaat bi waru nekk rek di def éliminatoire ñu gagné ñu toog déedéet am nañu ay xale dañu war a qualifier Coupe d'Afrique dem ñuy jàng foofa ci ci defante ba ñuy jàng foofa bu ko defee benn at ñaari at bu nu màggee mhm. li ñuy yóotu ñu am ko très bien merci merci oui <laughs> sant RFM sant euh, TFM parce que loolu wax dëgg yàlla initiative bu citoyenne la mhm. mooy xaaru leen kenn mu ñëw ci yéen parce que say yëfi bopp mhm. bu la ca bu la ca kenn jow bu jotee na nga jël sa loxo jël sa tànk la nga mën nga def ko ci bu ñu togg ceebu jën boo amee double xorom bul xeer sa xorom soosu parce que xorom si xëy na bu manqué ni ngeen def noonu mooy wane ni mbir mi ci ngeen réew mi ku nekk dafa ci am pàcc mhm. yow bayal sa waar ba mu mët ku ñëw fekk la ca. très bien Ndofène ñu dem fekk ji aussi waa 12e gaynde ñoom ñi ngi bay seen waar depuis début semaine bi euh, ci coin du tey nag ñu demoon fële port waa direction port ñoom tamit indi seen jàppale joxe euh, lu mot 20 euh, millions ngi jàppale supporteru 12e gaynde yi waa 12e gaynde aussi am nañ lu ñu wax ñu déglu leen ci micro Cheikhna Aidara. réew mi raaya bi bàkk bi ñu bëgg koo door nag samedi jàmm ñuy woo ba député ba ba ci président de la république yéen ñëpp na ngeen ñëw stade Léopold Sédar Senghor ñu nekk ci ginnaaw équipe bi ndax ndam li nu bëgg xam waaw ñëw ndam li nu bëgg naam sax dañ na qualification la ñu bëgg waaye na coupe d'Afrique la ñu bëgg indi te bu ñu bëggee coupe d'Afrique incha allah ñun ñëpp dañoo war a nekk ci gannaaw équipe nationale. ne ñëpp àndandoo maas ñëw jàppale jàppale les lions tous derrière lee lions te tamit ba ñu boole xol yi bu ñu boolee xol yi rek am ndam bu ñu boolee xol yi rek am ndam ñu ñaan tamit baa ci buur bi mu may ñu ndam ba nga xam ni samedi incha allahu rabbi à la première mi-temps baa ñu teel a génn si baa ñu dugal leen ñaari bii yu gaaw baa ñu dugal leen trois yu gaaw bàyyi di ñaan tamit sénégalais yëpp fu waay toll mag yi mag ak ndaw meer ak paa képp ko maanaam ci loo xam ni daal mën nga ko def ba équipe bi gagné surtout ñaan ci yàlla baa ñu boole xol yi. dañuy faral di ne sénégalais bu ñu xol yi bokk booloo ku ne yéene sa morom jàmm pour le treize. incha allahu rabbi dinañ gagné Côte d'Ivoire dinañ qualifié waxuma gañe dinañ qualifié contre le Côte d'Ivoire yaay yi dina yëngu sœurs yi comme ñun dina yëngu parents yi dina yëngu les grands frères grands sœurs ñëpp yëngu ñëpp sol unique pour le match du 13 incha allah bu ñu ko yàlla defalee ah yàlla nañu yàlla dolli suturaal suturaal ñëpp ba ñu gagné match bu ñu gagné match bi day Sénégal gépp ko gagné. voilà jigéen ñi nag bëgg naa aussi ñuy woote 88 628 22 22 parce que football bi moom du góor ji rek ko moom yaakaar naa <laughs> n'est-ce pas alors euh, Ndofène euh, ñu ngi jeexal émission bi euh, donc peut-être ce dernier moo balaa ñuy tàggatoo ak suñu mbokk ñaari yëf bu njëkk bi mooy douzième gaynde ministre des sports may na leen dix mille billets mm-hmm. beneen bi mooy ñu ngi ñaan suñu autorité yi loge bi cent quatre-vingts la ku ci ne dañ lay jox sa carton d'invitation. pour benn nit pour benn nit. Mhm. muy personnes. xam nga sa kilifa bu ñëwee ànd ak nit da ngay am kersawu wax ko loolu waaye bii yoon nan ñu li xewoon keroog nan ñu may ba mu bañ a amati parce que bu fekkee ku ne ñëw na ànd ak nit dañu nekk 360 personnes te 180 personnes na fa nekk ñoo ngi leen di ñaan ku ci nekk bu yoree carton na ñëw ak carton moom dong mu duggee ko. très bien merci Malal ce dernier mot. man jàpp rek man fu mu toll nii damay su summi mbubu journaliste bi te ko fële parce que réew mi moo soxla dañu jóg jàpp ci parce que bu ñu qualifié ñëppay bëgg très bien alors ñu ngi remercier euh, Thiam moom woon nañu depuis Gabon malheureusement euh, chaque fois que muy dugg day fekk waxtaan bi yemb donc euh, ñu ngi koy remercier et puis jox dox daje suñu mbokk yi demain demain et demain on va parler de ce milieu de terrain qui a <laughs> beaucoup parlé <laughs> Voilà. Quelle combinaison donc au milieu de terrain pour venir à bout de ces éléphants. Donc euh, ce sera le thème de demain, demain, toujours avec euh, Manfa et euh, nos invités. Très bien, merci à la réalisation. Excellente soirée à tous.